jaxatane murid dëkk bul mer te bu jàpp mer mer ak jàpp mer day alaak am murid borom Madina borom Madina roy leen borom Madina Touré am murid dëkk bul mer te bul jàpp mer mer a jàpp mer day ala xam mur wajatu kulli li na wado di samadi Muhammad I'm the worst to love a in life. إلا إنها جنبي ولد عبد الله ولدي وحبيبي ومكلمة على النبي ولدي عبدي ومكلمة حليم ولا ربي بجاي المصطفى يا حسين خطنا بمنتهى المختار من عبد المناف يجد بخير وفيني لا إله إلا الله ربي بجاي المتباب نمر ها ها ربي بجاي المتباب نمر بجد بخير بمكيني مضرا في جاي المتباب نمرا بخير وبكني على الله بداية صباح أي فؤاد يا برود سعدي أبدا بمرتحى بن كعب والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق يونس بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق مبيون بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق barakata siddiqi wal faaro بركة الصديق والفاروق لم يدن بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق بركة الصديق والفاروق جميعة المجموع والمفروق بركة الصديق والفاروق عقبة جميعة المجموع والمفروق أكرم رب العرش ذا النورين ووالد سنتين في الدارين أكرم رب العرش ذا النورين نورين ووالد سنتين في الدارين صبت صعبة النبي الأدقياء عليهم ربان مجرى صحيان ممن له عيس وعند فجنده محصوم عيسوم عيسوم وعند فجنده محصوم رفع أهل بدر الإسلام فسه الفجار والسلام رفع أهل بدر الإسلام فسه الفجار والسلام بعد ما يسوءه القناص سربا له أنا قنا دوم يا صلاة يا ولي الخيال في دار سلام سرفل دوم يا صلاة سرفل manga gane Daaru Salaam ikala salamatan adumu ya salaam ya walil ayala fi Daaru Salaam ikala salamatan adumu ya salaam la ilaha manga gani Daaru Salaam ikala salamatan adumu ya salaam يا ولي العالة الدار سلام اجعل سلامك تدور يا سلام دار سلام اجعل سلامة تدوم يا سلام يا سلام اجعل سلامة تدوم يا سلام يا سلام kan salamaton to doomu ya salam liya walil ala fi dar salam kan salamatan to doomu ya salam yalla ijal salamatan to doomu ya salam ya salam يا ولي العيال في الدار سلام سرني فل يا سلام زال يا ولي العيال في الدار سلام ربي بها من الورى ما لا يحب يا خير من ربى وخير من وحى بها من الورى ما لا يحب إلا لا يا خير من ربى وخير من وحى إلا يسق فيها وفي توبايا وخلصي أصل من رخبايا بها من رقايا رب خير عافية خير عافية وجل حياتي حياة صافية بعبدين رب خير عافية إلا لا وجل حياتي حياة صافية مد حياتي بفرود الوصول جنة النعيم في دار من الله حياتي بفرود الوصول دار من الله جنة النعيم في دار بسيرو لجنة النعيم في الدار من الله لجنة النعيم في الدار من الله بسيرو لجنة النعيم في الدار من الله بسيرو لجنة النعيم في الدار من الله قال sëriñ min Allah sëriñ min Allah daarul min Allah النار المسيرة لجنة النعيم في الدار من الله تدل jannati naimi fi daari min Allah li jannati jannati naimi fi daari min Allah Basiru sëriñ Basiiru li jannati fi daari minan daarul minan daarul minan sëriñ fi daari minan sëriñ sëriñ Basiru li jannati naim fi daari minana borom madina madina ba li jannati naim fi daari minana borom madina madina ba li jannati naim fi daari minana borom madina madina بنا باخل جنة نعيم في الدار مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة باخل جنة نعيم في الدار من الله برم مدينة مدينة باخل جنة نعيم في الدار من الله برم مدينة مدينة لجنة النعيم في الدار من الله ضرب مدينة مدينة با لجنة النعيم في الدار من الله محمد لمن ضرب مدينة مدينة با لجنة النعيم في الدار من الله مدينة مدينة با جنات النعيم في دارنا محمد الذين مدينة بجنات النعيم في دارنا محمد الذين رمضنا مدينة بجنات النعيم في دارنا مدينة بجنات borom madina madina baax li jannatin na'iim fi daar yàgg fi te wér Madina Madina ba li jannati na'iim fi daari minallah Sëriñ Bara Touré borom Madina Madina ba li jannati na'iim fi daari minallah jóg leen magal Sëriñ Bara jóg leen magal Sëriñ Bara mo ngi def yàlla mu teew déwén Madina ba li jannati na'iim fi daari minallah yàgg fi téeméer مدينة مدينة باع لجنة النعيم في دار من الله برب مدينة مدينة باع لجنة النعيم في دار من الله سيبارة توري برب مدينة مدينة باع لجنة النعيم في دار من الله سيبارة توري برب مدينة مدينة بحل جنة النعيم في دارنا مدينة بحل جنة النعيم سوري بارا توري أرى مدينة مدينة بحل جنة النعيم في دارنا مدينة بحل جنة النعيم أرى مدينة مدينة بحل جنة النعيم في دارنا bi jannati naim borom madina madina ba bi jannati naim fi dari madina ba Serigne Bara Touré borom madina madina ba bi jannati naim fi dari madina yàgg fi tewer borom madina madina ba bi jannati naim fi dari madina بجنة النعيم في الدار من الله مد حياتي بفرود وسنة بجنة النعيم في الدار من الله حياتي بفرود حب وصنع مثل جنة النعيم في نار مج حياتي من ممات وقدر أليس بما مدى به القدر حياتي من ممات وقدر إلا لا بما مدى به القدر ونجيتني من الممات والعصاب وجنسا بكل خير احتساب نجيتني من الممات والعصاب لا اله الا الله وجنسا بكل خير احتساب lu ma wax la waral magal ga nga ni Seex Fallu reyal juddoo nga déglu ma wax la waral magal magal Sëriñ Fallu magal Sëriñ juddoo nga déglu lu ma wax la la waral magal nga nga xam ni Seex Fallu reel juddoo nga digle ñu magal Sëriñ Fallu te yàlla déglu lu ma wax la la waral magal ga nga xam ne Seex Fallu rayal juddoo nga manga gene Daaru Salaam manga gene Daaru Salaam manga gene ma wax la la waral magal ga nga xam ne Seex Fallu reyal juddoo nga déglu la ma wax la la waral magal ga la ilaha illallah bayu soxna ummi galas déglu lu ma wax la la waral magal ga nga xam ni Seex Fallu rayal juddoom ga manga gene Daaru Salaam ma ga nga xam ne Seex Fallu ñu soxna ummi galas ñu soxna ummi galas bayu soxna ummi galas déglu lu ma wax la la waral magaga nga xam ni Seex Fallu rayal ju doonga bayu soxna ummi galas déglu lu ma wax la la waral magal ga nga xam ni Seex Fallu rayal juddoom ga ma wax la la waral magal ga bayu soxna ummi galas déglu lu ma wax la waral magal ga nga xam ni seex Fallu rayal juddoo nga déglu lu ma wax la la waral magal ga jëlu ko Tuuba seex Fallu rayal te yàlla déglu lu wax la la waral magal ga ni Seex Fallu rayal juddoo nga déglu lu ma wax la la waral magal ga ni Seex Fallu lu ma wax la maga dene Daaru Salaam sëriñ Muntaxa yi Seex Bamba jóg leen ñoo santo ko sëriñ Muntaxa yi Seex Bamba jóg leen ñoo santo ko sëriñ Muntaxa yi Seex Bamba jóg leen ñoo santo ko Seexu Bamba jugleen jugleen Sëriñ Muntaxaay Seex Bamba jugleen ñoo santo ko mbooloo yi métti jógal màggal Seex Muntaxaay na ko na ñëpp jóg Sëriñ Muntaxaay Seex Bamba jugleen ñoo santo ku ka màggal mag Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko ku ka màggal mag Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko Sëriñ Muntaxa jug leen Moussa. ka màggal mag sëriñ Muntaxa Seex Bamba jug leen ñu sant ko. sëriñ Muntaxa Seex Bamba màggal leen ko. ku ko màggal mag sëriñ Muntaxa Seex Bamba jug leen ñu sant ko. sëriñ Muntaxa. Seex Bamba su ko màggal màgg sëriñ Muntaxaay Bamba jóg leen ñu sant ko Bamba jóg leen Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko Sëriñ Muntaxa Seex Bamba jugleel ñu sant ko raw lu leen ñu sant Soxna Jaara bu monu nu sampi daara tax nu sampi daara xeraw lu nu santu soxna tax nu sampi daara

xeraw lu leen ñoo sant soxna jaara mi manu may lu tax nu sampi daara xeraw lu leen ñu sant soxna jaara xeraw lu leen ñoo sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara ndeysaan ngir moonu ku sopp soxna ummi galas xaraw lu leen nu sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara besa ngir maalo ba te yàlla bu leen matan xam lu bu leen matan xal bu leen na xal ndoxum ki leen di tan xal bu leen matan xam lu bu leen matan xal ilaha illallah bu leen na xal ndoxum ki leen di tan xal celentu leen ta ubbi seeni nopp ak seeni xel ma ubbi seeni bopp celentu leen ta ubbi seeni nopp la ilaha illallah ak seeni xel ma ubbi seeni bopp génne seen wagaane xol tataatam ma jaara waa melo bu naanul yaa bon da génne seen wagaane xol tataatam mu soxna ummi galas ma jaara waa melo bu naanul yaa bon yàlla da génne seen wagaane xol tataatam man jaara waa mela kuna dunyaa bono waa mela waa jaara waa mela kuna dunyaa bono man jaara mami soxna ummi galas mam jaara waame la ku naanul yaa ummi galas mam jaara waame la ku naanul soxna ummi galas mam jaara waame la jugle ñu màggal soxna ummi galas mam jaara waame la ku naanul yaa bono la moo la mi toog yàlla mam jaara waame la ku naanul yaa bono la soxna si soxna si yàgg fi te wér mam jaara waame la ku naanul yaabal soxna si soxna si yàgg fi te wér mam jaara waame la ku naanul yaabal yàlla mam jaara waame la ku naanul yaa bonlo yàlla mam jaara waame la ku naanul yaa bonlo soxna si mam jaara waame la ku naanul yaa bonlo soxna si mam jaara waame la ku naanul yaa soxna ummi galas mam jaara waame la ku naanul yaa bonlo soxna ummi jalas mam jaara waa mela ku naanul yaa ama yàlla yokk leer yaa mam waa mela ku naanul yaa yaa mam ab sa dem yal na yàlla yokk leer yaa mam jaara waame la ku ab sa dem yal na yàlla la ku leer yaa mam jaara waame la soxna Absa Dem yàlla yàlla yokk leer yaa ma jaara waa mela imaam yaa bono soxna Absa Dem yàlla yàlla yokk leer yaa ma jaara waa mela imaam yaa bono soxna Absa Dem yàlla yàlla yokk leer yaa mam jaara waa mela bu naanu yaa bono soxna Absa dem yal na yàlla yokk leer ya mam jaara waa mela imaam ya borom soxna Absa Dem yal na yàlla yokk leer yaa mam jaara waa mela di maanum yaa borom ñaanoo ko nu de waaye dafa am lu mu bëgg borom Tuuba war ni jaajëf borom borom Tuuba

war na ni jaajëf borom Tuuba Daaru Salaam ku di borom Tuuba ku di jullit ku di jullit war na ni jaajëf borom Tuuba

bishina Daaru Salaam ku di julli war na ni jaajëf borom Tuuba bishina Daaru Salaam ku di julli war na ni jaajëf borom Tuuba war na ni jaajëf borom Touba. ku dib julli war na ni jaajëf borom Touba. ku dib julli sant leen borom Madina Touré bu àllëgee yal na nu gisee borom Touba. sant leen borom Madina Touré bu àllëgee yal na nu gisee borom Touba. ma jaara am na dam ma bu allëge yàlla nu gise borom Tuuba soxna jaara am na dam ma bu allëge yàlla nu gise borom Tuuba Muhammadu Lamin Baara bu allëge yàlla nu gise borom Tuuba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu alage yàlla ma gise borom Tuuba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu alage yàlla ma gise borom Tuuba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu alage yàlla ma gise Cheikh Mor Fati Touré Cheikh Mouhamadou nu gisee Cheikh Mor Fatou Touré Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu alage yal na nu gisee Cheikh Mor bu alage yal na nu gisee Cheikh Mor Fatou Touré Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu àllëgee yal na nu gisee Cheikh Mor Fatou Touré am na ngërëm Mouhamadou Lamine Bara bu àllëgee yal na nu gisee Cheikh Mor Fatou Touré borom Touba Mouhamadou Lamine Bara bu àllëgee yal na nu gisee Cheikh Mor Fatou Touré yàlla nu gisee borom Tuuba bu àllëgee yàlla nu gisee Seex Mor Faati Ture yàlla nu gisee Alhaji Fallilo bu àllëgee yàlla nu gisee Alhaji Fallilo Alhaji Fallilo bu àllëgee yàlla nu gisee Alhaji Fallilo alhaaji fallilo bu alage yal na nu giseel seriñ fallilo rek leku rasululay di ko reku nal ni kiima ramu na koy geneela law ngolol mu teela saama am jaara jaara mu dee la saaba léeg-léeg rasuululaay di ko rekku ki nangu na koy gëne la ndaw ngolol mu dee la saama mam jaara jaara daf na bi rasulullahi di goreku angu na ko ingene la nawngolol mote la sama rasulullahi di goreku meru dikima ingene nawngolol mote la sama mas la dox di wax mas la jug mat la wax bañe daani moo toroxal seytaane di waxtaani di seetaani a ah, mas la dox di wax mas la jug di seetaani mat la wax bañe daani moo toroxal seytaane di wax mas la jug di seetaani ومسنا وخبنيتا jaara yaa bënni géej mbambulaan moo naan soxna jaara yaa bënni géej mbambulaan moo naan soxna jaara yaa bënni géej mbambulaan moo naan soxna jaara yaa bënni géej mbambulaan moo naan soxna jaara yaa bënni géej mbambulaan moo naan soxna jaara yaa bënni géej mbambulaan soxna jaara yaa yaa soxna jaara yaa bandigin bambulan déggatoo fi kenn mar ku gantu bay bañawal soxna jaara yaa bandigin bambulan wala déggatoo fi mar ku gantu bay bañawal déggatoo fi kenn ku mar ku gantu bay bañawal fi mar gantu bay bañawal déggatoo fi kenn ko bay bañawal déggatoo fi kenn ko mar da ku gantu bay bajawal déggatoo fi kenn ko mar ami soxna ummi galas déggatoo fi kenn ko mar da ku gantu bay bajawal déggatoo fi kenn ko mar jukkaleen soxna jaara buso déggatoo fi kenn ko mar da ku gantu bay bajawal déggatoo fi kenn ko mar da ku gantu bay bajawal borom baax la إله إلا الله ilaha la. leen ñu sargal Pape Mbengue waay waaw Pape Mbengue yàlla yaa di buur di boroom rabbana illallah yàlla yaa di buur di boroom

Cheikh Baye Ngor Cheikh Modou Amé Balla Cheikh Modou Abdallah Nardia mom kausara

ci baatu laa ilaaha illallah bani dee waawa waawa rabba werano tasaxal ci baatu laa ilaaha illallah waaw waaw trở lại sẽ nám sông đường pha khắp bạc la ilaha illallah la الله لا إله إلا الله لا إله Nangul leen ñaan اهدي جميعنا صراط المستقيم وبسعيد كلنا اهدي جميعنا صراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سبيل لك خطاب يا قريب يا مجيب يا من به لا خير عجيب هب لي وللذين تعلقوا بي هدى إياك نعبد ونستعين فإنك محمود والمحيط دللتنا بك عليك يا رقي يا من به ينقله كل نقي يا صراط مستقيم حبلنا هدى به يغبطنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وجه لنا سواد دين فائحا وجه لنا صدقا وبائحا وبيننا وفق مع أولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مسلما بخيرات كرنا لا نستجب يا خالق الكبار وقبلة الصغار أنت وهب لنا zuriyatan tudimo al'amal salih ya qadim wa hablana nur ala nurayn wa وهب لنا نور على نورين وليها سعادة دارين نور على نورين وهب لنا نور على نورين سعادة الدار ردا ورحمة وبركة بجاه كونه أحمد عبد الله قديم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh